bon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di siyaar di leen baalu di leen baal euh, soo gisee ñu def vidéo bi dafa fekk nii euh, réew mi toll na situation ba nga xamante ne nii xel ni ñu ngi jaxasoo ñii ñu ngi xalaat lii ñii di xalaat lele te nag dafa dafa jot ñu delloo si suñu xel te xam ne lii euh, lu fi jaar la rek te ni mu fi jaaree noonu la fi mën a jóge mais. suñu jëlee suñu xel yi euh, jàpp ci que ne euh, jàpp ci leneen daal day metti ci ñun te nag dafa jot dafa jot ñun jeunesse bi ñu xam ne euh, ñun ñoo war a yore réew mi ëllëg ñu war a yore réew mi ëllëg war nañu wane image boo nga xamante ne ëllëg bu ñu taxawee dinañ ne jeunesse bii lii la wane woon mais pas loo nga xamante ne comme par exemple di jàmmaarloo way takk der yi.

Euh, ci état d'urgence ñu xamul état d'urgence ba pare di ci di ko interpréter nu leen neex dañoo war a dem gëstu ji lan mooy état d'urgence su ko defee dinañ si mën a wax loo nga xamante ne nii daal dana yaatu suñu message bi du lenn lu dul di sensibiliser jeunesse bi que ne euh, waruñu mën a situation yi warta mën a taxaw euh, ñuy am haine si contre homme de loi yi parce que homme de loi yi ñun ñii lañ fi nekkal. ñoom ñëpp ñun lañuy ñun lañuy aar te tawat ji dañoo war a booloo bu ñu boolowul dina dina fa jaare suñu suñ suñu réew mi dootul doonati réew parce que tawat ji dooleem xajul Sénégal parce que ñun amuñu matériel boo nga xamante ne ni war nañu mën a xeex tawat ji kon nag tawat ji war nañ ci mën a booloo suñu booloowee war nañu mën a xeex tawat ji waaw voilà ñu ngi jéggalu nag su fekkee am na ay baat yu gaañ parce que euh, c'est la première fois ñu doog a def vidéo bi pour rek sensibiliser suñu moroomu jeune suñu jeune suñu moroom yi ak suñu parents yi ak ñëpp ñoo nga xamante ne nii euh, ñoo ngi dund ci biir réew mi ak bitim réew ak fépp jërëjëf